sunu cëru taalibe lañu seet si sëriñ bi moo tax li noo jëkk def mooy sant sëñ mu Muntaxa ñaan mu yàgg fi te sëñ bi léegi li ma ko wax dama ni ko yàgg naa la wax am na ñaar fukki at booba lii yëpp ñëwagul woon yàgg naa wax ni yow dangay seral xolu taalibe yi di dalal seen xel soo gisee kanam gi rekk ak ree ji rekk sa xel dal su waxee sa xol sedd ma ni ko tey àddina bi yëpp kenn weranteetul loolu léegi ñëpp nangul nan la ñaari jukko yooyu mooy dangay seral xolu taalibe yi di dalal seen xel bés bi ni ko wootee noonu la ñun ñee taalibe sunu xel dal na ni sëñ Touba dana nu taxaw ba li nu bëgg sunu borom defal nako kunyosi ku ñew ci magalam gi da xamni ni Touba sunu borom fay nako man sëñ bi li ma waxoon mooy ma dikke nekkalal askan wi don taalibe sëñ Touba moo tax ma anduma ak mbolo man kenn ma ñew ni ko di defee. ziar sëñ bi saafoonteeg moom te nag sëñ bi nag yàlla may na ma si boppam loo xam ni néew na ma toog fukki fan ak juróom yu nu gisewul yenn saa yi sax may defal xéewal boo xam ni day toog rek ni kar téléphone ni ma téléphone bi de dara jarul lu dul dara waral ko lu dul dama la doon nemmeeku kon man aw ma fay fayu sëñ Muntaxa ñëpp koo gis ni si ëpp ñëpp ngi sol seen masque taxaw jëfe ndigal kon nag sëñ Mountakha wax dëgg yàlla du murid yi kese ñoo ko war sant l'islam bi yëpp waaye mbindeef yëpp ñoo ko war sant sëñ wax naa ko barke démb ni leen bëgg naa ñu seet histoire suñu seetee histoire gisuñu kenn koo xam ne jëlee nañ la Afrique occidentale yóbbu la Gabon nga man dellu si gisuma ko si histoire la ko doore Samori Touré Le ko doore si la ko doore Samba Laobé Fall ak ñeneen ak ñeneen ku que Gabon des nga une Touba moom képp moo dem Gabon dellu si te loolu que je bu ko jox ñun am nañu fierté de sëñ Touba ni sénégalais la ñu